accord ah seen yenn journaux yi ñu ngi annoncé accord mais pour l'instant c'est pas encore officiel rien n'est officiel mais nag bu ñu seemee leer na leen ci wax ñoom daal nga xam ne millions lañ ci teg ah, cent dix millions lañ teg ci table bi nga xam mooy loolu pendant ce temps également Ibrahima Sangaré bokk ci milieu de terrain yoo xam ne également waa Bayern dañ ko bëgg fi pour renforcer seen milieu de terrain gannaaw bi nga xamee ne ki nga xam mooy Sabitzer dem donc Ibrahima Sangaré daal la ñuy xalaat fi pour ñëw concurrencer ki nga mooy donc Goretzka pendant ce temps aussi ki nga mooy donc kii gayen bi gayen waa ji lañ bu gars yi war moytu Okay. Yani gani moy Pickford hein ah, qui moy borom coup franc yi kii instant moy rivaliser bëgg battre record bi ba nga xam donc bu David Beckham actuellement dal gay wa West Ham ñoo ciy nekk West Ham également bi nga xamné ne fi mu ne di Edson Alvarez hein donc moom it ah, le joueur euh, mexicain daal nay signé foofu aussi en provenance de euh, l'Ajax Amsterdam nek joueur boo am talent aussi mom signé na du côté donc de West Ham son championnat Angleterre mom rek moom niveau bi dina gëna a yéeg ah Moïse Caicedo nag waa Liverpool ñoom nee dañuy sopp dugg ci affaire yi ñom fi ne dañu dañoo bëgg këpp yàlwaanu ñi nga xam moy donc waa Chelsea temps dal Chelsea Liverpool Liverpool ku nekk daal day xëccoo benn joueur fi mu ne nii Caicedo daal Liverpool euh, approché mais dafa guñ proposition officielle Chelsea mom def na proposition yu bari wa donc Brighton dal di koy bañ ki nga xam donc Fred actuellement daal <clears throat> Fenerbahçe

fi mu ne nii dafa yóbbu ci yoon ñi nga xam mooy doog waa Manchester City li tax mu yóbbu leen ci yoon nee na août ba janvier 2023 fayuñu ko salaire ba mu amee problème ba léegi gars yi fay ñu ko benn dërëm moo tax fi ne nii yóbbu na leen li nga xam mooy donc ci yoon pourtant nag bañ ko ah, moom ne joueur bu respectueux la ku aussi nga toog ay weer weer weer at sax fayoo joueur loolu daal dafa doy waar moo tax yóbbu na leen fa ma ne doonee benn ki nga xam ne également moom mooy ah, de Rennes donc fi mu ne nii daal mi ngi ci short list bi ah ñi ngi Manchester City daal boole nañ ko ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di xool pour ñëw renforcer seen équipe boobu waa Arsenal nag ñoom gars yi fi ne nii ñoom gis ngeen ne présenté nañ seen maillot bi ah maillot bii nii ah daal xaw a benn maillot bu Manchester euh, United ah, donc fi ne nii nag ñoom seen maillot baa ngi nii ñu les les récents vainqueurs face à City gagné nañ City nag. jàpp nañ confiance une confiance de du neex ren moom du métti du yomb plutôt diggante City ak Arsenal ak yeneen club yi du yomb de kii di Abdel ak moom na wax na Barcelone notifié ne leen carrément du carrément jugewu fa du jugewu fa suba donc proposition bu ñëw yow ngeen faxas ko te ko fale moom dafa bëgg imposé wu du côté du club Blaugrana ki est également di Mbaye hein, le joueur Saint-Louisien hein, donc fi momita cadis du Cadiz di club am dafa bëgg donc daf ko ubbil na ko bunt yi pour bu dire faut xam ben benn club bëgg na d'abord mu daal il a fait une saison exceptionnelle mais entraîneur bi fi ñëw comme entraîneur Boulaye Vallecano lim mu def ak part Ismaël Cissé la nek def di c'est un excellent défenseur Mbaye le Saint-Louisien ndar ndar la hein, qui kii également donc euh, Ousmane Dembélé Dembélé passé na visite médicale avec succès waxoon naa leen ko tay Dembélé la tay si visite médicale donc présentation bi nak officiellement pour signature officielle bi euleug lay doon wala ci week-end bi inshallah allah rabi mu dess nak ñu présenter ko comme joueur bu Paris Saint-Germain vendredi wala samedi dal wala dimanche au plus tard di ngeen ci am ay nouvelles qui nak di Eden Hazard Eden Hazard actuellement il est dans le Hazard club yu mag yi nekk Europe yëpp kenn beaucoup proposition yu am daal Belgique de deuxième division ak fa donc ci Arabie Saoudite ak aussi ca États-Unis loolu dal la proposition mais club yi nekk kenn deful fimné ne ni proposition Eden Hazard ba sax gaay yi ñu ngi bu woyé ni est-ce que Hazard Hazard euh, arrêté carrière comme nim ko défé avec l'équipe nationale a ah, mu arrêté définitivement carrière en tout cas Eden Hazard mom blessure am yi ñoo ak aussi ñak entraînement ndax ko wax mu la do entraîner donc gars yi li moo nekkoon information ñen di jox ah c'est toujours un plaisir de vous servir woyé leen di like surtout gars partagez partage vidéo yi abonné leen en masse gars pour agrandir la famille je l'ai dit inshallah, J moins 1 prime League bi commencé na commencé ngeen gis yeneen facette yu bees ku mën na def gars on avance ensemble bu baaxee ci yéen la bu bonee ci ñun la jaajëf